إلا سوى نحو البغاء والموت لا نفوس كلها بفوت salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu barke Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul bismillahi rahmaani rahim màggalug centenaire Bamba day ngëneel bàyyi jégal te nga jël sa xiin gët a yëgle sant santaneerub sëriñ bi way ko te bégle te nga feeñal ci say manoore te sant dellu tuub ñaan sa biir ya fenk ne jant na nga way te bis bi ngir ku ko màggal am pajuk aajo am ngërëm am njëgal sant santaneerub sëriñ bi daanu ci fent wa yu riis kañ ci bamba ngir di ca sant bis ba seex mustapha al karim ko digle boot ya bamba ko wax ku bañ danga rawle guddi ashrina muharram la ca diw yiw ku xamoon góot ya ak ngëneel dana daw ñëw nanu màggal téeméeri at yile buur ba woolu woon ba ngir ñu jox ko añam ba sëriñ Touba sariha sunna la jàpp jaamu bur yàlla roy yeneen ba mu sopp yóbbuloo alxuraan yàlla ci léppam tegtaloo Moustapha hadis ya ci féppam bamba gëm yàlla gëm yeneen ba di jëf yiw soo bu jaayante topp bëri ya ñu daanaw wàllu yoog sax ba yaag yonent yàllay roy dëddu bànneex kan seytaane da koo rey bam gisee Moustapha ak sahaaba ya koy dar dafa jaayante soobu ngir bëgg seen cër bamba daa topp yoonu bëri ya ba xëy raw ku di waliyu ak sahaaba ci jëf yiw bamba yonentab yàlla bay ka ko tànn def ko muy xaadimul rasul mu di kenn géeji liimaan da koo dëtam ne ko secc dexi lislaam lihsaan mu naan ko ba ngacc buuti quraan ya yàlla jox na ko bamba leer ya ak sekkarey hadiisi yonen ba ngir ma waliyu ya ak sahaaba ya daa daw bamba moo teggi tuur ba ñépp la xëy raw bamba am nay manoore def na ci ay ndam te jallooreem ya tiiñ na góor ba amul kem santeneerub sëriñ bi nuy bëgg a màggal dafa làmboo ngëneel yu rëy dara fàggul neerub sëriñ bi daa jara xamle jikko yaag jaar-jaaram yi ak yemu gën le sant santeneerub sëriñ bi tax tëgg bee jóg boole wootee kawaare ngir bëgg ca caa sant neerub sëriñ bi waaju ci ñëw raw da nga am barke làq cër ya ñu daa naw sant neerug sëriñ bi waaju ko màggal gudd fan bir wërsëg wu yaa ami njégal sant neerub sëriñ bi yal na ko buur fay ay nga nee lëm te ful ko aarnu ci aw xay sant neerub sëriñ bi wax yamu mu gën le ku amub cër def naa ko muy sama jagle sant neer bii na yàlla may nu ci ak wér gudd fan wér wërsëg musal nu ci ay lor allahumma salli ala seydinaa muhammadin wa sallim